saaka almutawaa saaka sujaawa asalaamaaleykum mbokki taalibe yi xam ngeen ni bu ngeen déggee sunu kaddu nag ah màggalu xaadim rasul bis bi sëriñ Tuubaa wàcceeb liggéey Cheikh Moustapha jële ko njaareem indi ko Tuubaa taxaddam wane la ko rasulillahi yàlla di ko fay rasulillahi di ko tee mooy màggal gu mag gi dégg ngeen Cheikh Amadul Maxtaar na ma ko waxe waaye doomam seen sët bi nangu ndigal te man ci ndigal tey jafe ndigal kooku mooy kan mooy sëriñ Moustapha Mbakke Mouhamed borom afi bàyyil xaj bu ngeen déggee sunu kaddu nag le huit mooy bisub Cheikh Moustapha bi ñu jëlee woon sëñ Bamba njaareem indi ko jëbal ko yàlla ak rasulillahi bis boobu sëriñ Moustapha Mbakke Mouhamed ak day xasida alfi bàyyil xadim yëpp teg ko nañu def ko nañ ko daa defee màggal ko nañ ko daa màggale yëkkati ko nañ ko daa yëkkatee jëfe ko nañ ko daa jëfe looloo waral ah ndigal loolu rot ci sëñ baara rakkam ji ki topp sëñ Moustapha yore afi bàyyil xadim ak dayri sëñ baara foo ko seen muy dem bu laajte ci ndigal sëñ Moustapha Mohamed la nekk ak kan ah Baye Ndiogu Fall ma àndoon ak sëñ Mbàkke soxna loo toogal ko fii ci Ndakaaru toogal fi sëñ Moustapha Mohamed a la ko wër ak ñi ma àndal ñëpp ak kan Baye Cheikh Jenn mi nga xam ni mooy jiite section Dakar ànd ko mbaaw ci suba la ñuy ànd ak sëñ Baara mu jiite convoi bi jaar kees jël waa kees dem jaareem fa lépp sosoo xaar waa Kaolack dayira ba ñëw fekk leen fa afi bàyyil xadim yëpp àndandoo dallu dafay waxtaan jël xéewal yi màbba nag dem Touba fekk sëñ Moussa Mamet borom niveau ji kon bis baa nga noonu le huit di màggalu xaadim rasul moom dong la ñu wax ni ba ko Seex Moustapha jëlee njaareem indi ko Touba ko fanaan ci bis bi boo xëyee tàggoog bakkaar daaru xudóos réclame na ci ñëpp dem fekk sëñ Moussa Mbacke Mouhamed borom niveau ji fala